liggéey loolu gën say njaboot je le dis et je le répète lan ngay liggéey ak li liggéey pour lan la boo seetee effectivement tu l'as si bien dit benn nangul naa la ko jigéen ñi ñu am jàmbaar lañ bu bu jóg jotee waaw waaye ñoo dàq yàq sur terre fii Sénégal liggéey ba amul njëriñ lu ñu liggéey un mois yàq ko ci benn tàkkusaan amul benn njëriñ seen bopp moo leen tax a jóg au grand détriment des enfants parce que aujourd'hui xam lan la il y a une seule chose benn slogan rek mooy la femme loolu mooy li xew. amul leneen seen bopp rek la. seen bopp rek lañ tax a jóg mais mais yow mii mën nga ko ci société bi des gens yoo xam ne. seen bopp rek lañ tax a jóg des femmes yoo xam ne elles sont très bien. mais soo gisee seen ay doom bëgg leen a doon. wax naa ko émission pass mais dama ne ça sert à quoi l'autonomie financière. Eh. boo xam ne sa njaboot. servir ci dara c'est ça être autonome. ñu def dañuy dem dañuy dem à la question rapidement. parce que bu njëkk di góor moo daan dem wuti. Mhm. yor la. Benoît jàpp ne effectivement loolu ci xeetu nooteel la bokkoon l'autonomie financière sert tout simplement à dire ma li nga ma mënal mënal naa ko sama bopp lu ma neex nga du lu la neex nga may def du lu la neex nga may teg. non non l'autonomie financière ne sert qu'à ça. Eh, loolu. non exactement du du ci xale tey yii nag bu ci xale tey yii du ci xale tey yii nag du ci xale tey yii. d'accord merci merci Prospère lan ma mën a mën a naan sama bopp du lu ma neex teg ma du lu la neex wax ma. loolu mooy dëgg gi c'est ça la vérité. yow yow xamal li xew sa koñ. man koñ man je parle du man je parle du Sénégal nga am ma koñ. Sénégal man je parle du Sénégal nga am ma koñ. si tu parles du Sénégal fi nekkul woon man mosuma fi jógee 25 ans de. ma ne la moi j'ai jamais quitté ce pays là 25 ans. mais li ma wax ça n'existe pas. non yow yaa fi nekkul woon 25 ans. xëy na dama la war a mise à jour quoi. tu ne peux pas me dire que 80 pour cent des femmes sénégalaises. oui li ñuy liggéey yëpp dañ koy yàq. pour seen bopp la. arrête non non du ma arrêté pour seen bopp la ñoom. 20 pour cent yi ngay gis ñu am. ay problème lan la 20 pour cent. xam nga le problème fan la jógee. Ah. et Safia a bel wax lu am solo xam nga lan la yar ma ne ko sañu papa ak sañu yaay dañ daan liggéey. Mhm. mais àdduna buy changé sañu papa ak sañu yaay yéen ñëpp daan ngeen jàng nit di fa la leen di fekk. kër ga ñu toog papa toog yaay toog ñu toog di añandoo. Mhm. foofu yar bi dañ commencé 3 ñu demaat. yaa ma dégg 3 heures ñu demaat. 5 heures. ñu ñëwaat il était responsable. 5 heures ñu ngi si kër gi yaay dugg si na tamit ñu toog continuer yar. boo wàccee boo wàccee de sama woo tey nga yaa ngi ci kër gi yaa kër gi ana papa mi ñëw li ma wax yaay daan na yar ba am benn moment mais ma déedéet fekk day fekk yaay wàcc day fekk yaay wàcc wala kii liggéey defal naa li ma wax dëgg rek pros moo tax sànq ma ne la mm-hmm.